danoo gëj a gisee lool. Tange Tandian ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyu ak suñu mbokku internet yi ñuy seetaan à travers tout d'abord je ngi lay nuyu la sargal de la fay di nuyu tous les internautes euh, du site Chronique SN mu doon benn site qui est plus particulièrement dama gis mu doon surtout féministe ay jigéen posent poser question ay gens ñooy filmer ay jigéen ñooy maquiller ay jigéen ñooy yor euh, technique avec son donc euh, c'est un plaisir pour moi de faire un entretien avec votre site. Merci. est mooy rôle Omar concernant les séries tout d'abord Omar, c'est un ONG c'est une organisation non profit gouvernementale ONG ça a été créé depuis 2001 donc après 19 ans d'existence c'est observatoire de la musique et des arts du Sénégal donc c'est la observatoire de la musique et des arts du Sénégal donc tout ce qui est culturel Omar, c'est donc dafa sous forme de syndicat je syndicat des acteurs culturels du Sénégal donc ñun mission mission Omar c'est de veiller d'abord sur tout ce qui se passe dans la culture alerter en plus d'être des vigiles madame donne ay vigiles madame donne garde corps défendre acteurs culturels donc les loo xamante culture nous suñuy valeur valeurs suñuy culture bu ñu ni le Sénégal c'est un pays laïque ce n'est pas un pays islamique on n'est pas à 100 musulmans, on est à 95 musulmans, à 5 chrétiens. donc c'est un pays laïque en plus nous deux coups de démocratie deux coups de liberté d'expression. donc euh, Omar ce que mission boo xamante c'est que D'abord, il faut réveiller les acteurs culturels yi mu doon ci musique bi ci wàllu parole yi li ciy le théâtre yi ci le cinéma bi ci art plastique lépp loo xamante ni euh, ci culture la ëmb rek OMART day veiller ci loolu loolu mooy suñu mission donc euh, ñun benn mission la ñam mooy comme ni ma la ko veiller alerter et d'être un vigile donc euh, bépp série buy daw Sénégal ñun dañ koy visionner avant xool ak dëppoo nag suñuy réalité ndax dëppoo nag suñuy moral ba pare ñu soog a bàyyi mu jàll parce que on est toujours en réunion avec les acteurs culturels du Sénégal ka ngay def théâtre ka ngay def cinéma ka ngay def musique donc ONG la boo xamante ni dafa large te vaste d' donc gis nañ ne ONG Jamra moom euh, dafa fas yéene organiser benn marche contre euh, la série maîtresse d'un homme marié loolu yow euh, ban jàngat nga si am ak ban gis-gis nga si am. c' est juste pour vous faire la précision ONG Jamra deful marche contesté wul série maîtresse d'un homme marié. soo bëggee am na communiqué boo xamante ni ñun jot nañ ko tey si ONG Jamra mën naa leen ko yónnee ngeen xool ko muy droit de réponse précision de l'ONG Jamra la confusion et la désinformation l'intoxication ne passeront point l'ONG Jamra reconnue d'utilité publique n'est pas le sujet à l'ordre du jour le problème c'est la démarche des responsables de l'organisation islamique et du parti politique RDS qui disent parler au nom de l'ONG Jamra par des intérêts politiques alors que tout le monde sait qu'une organisation non gouvernementale est par essence apolitique, c'est ce que ces derniers n'ont pas apprécié et n'ont voulu jeter la discréditée sur un outil de la société civile et sont responsables que beaucoup de partenaires nationaux et internationaux vous un respect et un égard à son engagement et à ses convictions et croyances religieuses dans la circonstance et la détermination. Ça a été signé par Bamargay. Mhm. Bamar Gueye le frère de Mame Matar Gueye Mame Matar Gueye tey moo di au nom de ONG Jamra Mame Matar Gueye pas ONG Jamra parti politique lañ RDS donc parti politique ak ONG ànduñu ONG du def politique donc Bamar a na ay précisions xamal ni que ONG Jamra nous sommes hors du jour pour critiquer Une série maîtresse d'un homme marié parti politique RDS bi Gueye son frère JT moo pour def pour des intérêts politiques ànd ceeg ay religieux donc ONG Jamra musul critiquer donc il faut faire la part des choses Nous avons ko de frère am bi Bay, bokkal Abdoulatif Gueye Abdoulatif Gaye bi fi jógee ñuy saluer euh, amam yalla, na yalla saral souf ci kawam ci famu nek? mu doonoon nit ko xamante ni dañu amoon ay colère ak moom di ak mom ci lu bëri mu ñuy conseiller duñu yedd ci lu bu mu fi nak ñi créer ONG Jamra ñëpp xamnañu temps passé amone na ben confusion entre les deux frères Gaye muy Bamar ak Matar Mame Matar bëgg jité ONG bi fekk Bamar mo fa nek mais Mame Matar ci politique bi la nek comme politique bobu amu ci visibilité donc day utiliser ONG Jamra pour casse yenn affaire yo xamanteni pour am ci ben visibilité donc communauté bobu le communiqué bobu lañu ñu c'était juste pour faire la part des choses au nom du peuple sénégalais de la société sénégalaise xamna ni ka tay limuy casse du ONG Jamra mo jog di ko casse parti politique am ak intérêt mo jox mu jog di casse ñun gis nañu aussi ci série maîtresse d'un homme marié gisuñu ci ben inconvénient bo xamante de ni dëppoowul ak suñuy valeur ak suñuy morale dégg nañ ko mu wax pornographie euh, verbale pornographie verbale ça n'existe pas quand on dit la pornographie c'est la pornographie sexuelle et cette pornographie sexuelle est en train d'envahir nos télévisions depuis belle lurette novela si fii lay jaar euh, Boom TV mi MTV il y a des clips vidéo qui passent dedans Vous savez, c'est des striptease c'est des euh, clips qui ont à caractère sexuel des femmes toutes nues où on défile l'alcool on défile la drogue on défile ça partout muy passé sur la télévision di passé suñu nous. nous musuñu gis une ONG ou bien lobbies lobby religieux bu pour critiquer pour nous censurer chaîne yu mel noonu tey soo lu mel ni Gabon ITV moy famille Kardashian fi ñu nekk xam nañu day pervertir sen jeunesse day pervertir société mais dès bi yëpp a jóg le temps pour ñu crypter ko duñu censurer dañ koy crypter ñun au niveau de la marque, on est contre toute forme de censure pour des œuvres de créateurs par nos jeunes sénégalais que mu jógee ci ONG que mu jógee ci état du Sénégal je le répète encore ñun d'accord ñu benn censure kenn du censurer benn œuvre parce que œuvre beau fi ça a été minutieusement veillé et regardé parce que liberté d'expression lañ aussi on est dans un pays démocratique tey war nañu bàyyi euh, créateur bi am liberté am exprimer wu xalaat xool naka lay développer par exemple théâtre Sénégal théâtre infusion fi joué dafa war a yee askan bi année, euh, bu par exemple benn côté ci euh, maîtresse de nos mariés, ñu gis Dior mu yor ça veut dire que chicha c'est quoi chicha parce que voilà chicha fait nañ fi cigarette. voilà chicha qu'on fait fi alcool. partout dans le monde fort il y a des bars des licences qui ont été octroyées par l'État du Sénégal nee le la départ on est dans un pays musulman Dior boobu chicha bi elle a 18 ans. si tu ba 18 ans am le droit de voter tu am le droit de se présenter tu am le droit de faire la tu es majeur donc tey ñan la ñuy wax la ñuy ce sont les mineurs mineurs yooyu nañ balaa nga leen di pervertir où sont les parents l'éducation des mineurs doit être gérée par les parents tey sa doom soo ko yaree ca na nga ko war a yaree du dugg ca leneen tey je te donne un exemple man bi may seetaan Bax Yamba au cinéma c'était en 1986 boobu cinéma lañ doon seetaan pour ma am 100 francs bi ma jëndee ticket sax dama doon dem toog neexal ñu may ma ko ma dem seetaani Bax Yamba mais bi ma seetaanee Bax Yamba 1986 ba léegi est-ce que xetu Yamba mës na ma neex est-ce que dem n'a tuxi Yamba parce que la femme ay valeurs ma inculté éducation bo def nañ ko ci donc je crois pas que ben chicha na am lo jouer parce que c'est un phénomène bo exister on le fait dans les boîtes tay so génnee ci école yi xalé yi ñi ngi dugg ci euh yi di tux chicha n'importe où tu vois des enfants de 15 ans 16 ans ñi ngi ci chicha donc pour ñun xeex bi du ci télévision xeex bi xam nga fan la dañu wara juk xol xool ñiy autoriser loolu ñu bañ ko def ba paré en ce moment suñu gisé nak télévision yi def ko ñu xam na ñom xeex nañ ko. ñu Merci beaucoup, c'était un plaisir pour nous de vous recevoir. C'est juste pour vous dire qu'Arrête Omar, Observatoire de la musique et des arts du Sénégal, dont je suis le directeur général, nous, nous sommes là pour veiller, alerter et d'être des vigiles pour les acteurs culturels. Donc nous sensibilisons tous les acteurs culturels à venir s'associer vers nous pour le développement de la culture au Sénégal parce que tey gis nañu cinéma tour au Sénégal cinéma mi ngi Le cinéma qui gisatu fi une salle de cinéma alors que tey suñuy œuvre dañ ko à l'international récemment gis nañ ci FESCAP FESPACO bi ku pour une réalisatrice sénégalaise réalisatrice sénégalaise Angel Diaban on a primé son film donc le fierté pour pour Sénégal c'est pour vendre la destination du Sénégal c'est pour vendre la culture du Sénégal et cette culture est un levier pour le développement économique du Sénégal Merci. namoon naa leen danoo gëj a